mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme Thiès info point ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen saa su ne dellusiwaat ak yéen seen actualité du jour actualité du jour dafay ñëw ci lépp loo xam ne actualité fait divers la ci lépp loo xam ne société la wala ci lépp loo xam ne donc people la euh, te réseaux sociaux yi donc xëy fësal ko donc seenu xëtu njëkk moom lañ leen andil donc seen actualité du jour ci euh, Thiès info point com actualité du jour dañ koy tàmbaleek site internet bii di Seneweb Seneweb dafa ñëw donc euh, bi nga xam ne donc moo xew fële ci diwaanu Mali donc titre une Mali les trois visages du coup d'état xam ngeen nag fële ca diwaanu Mali euh, ku ne xam na ne euh, démb ni ki démb donc euh, lañ fa amal benn coup d'état boo xam ne donc armée bi moo ko amal ginnaaw bi nga xam ne donc sàkku nañu ci Ibrahima Boubacar Keïta ngir mu bàyyeekoo donc ci boppu réew mi nga xam ne donc ay a ngi nii donc foofee ca diwaanu Mali jàmmarloo yi amoon fa ci nga xam ne donc ñoom ñoo di a jihadis yi mais également tension ci wàllu politique également amoon fa nekkoon loo xam ne donc lu ràññeeku la ca diwaanu Mali boobee nag ba tey ñi nga xam ne donc ñoo di euh, mouvement M5 bu euh, RFP ñu ràññeeku ci ko ci mel ni donc Imam di ko ak ñi mu àndal ci euh, mouvement bile sàkk woon na ci Ibrahima Boubacar Keïta ngir mu teggi donc ndombol tànkam ci bopp réewu Mali loole nag ki nga xam ne donc moom moo di Ibrahima Boubacar Keïta nangu woon ko dégg benn yoon taxoon nag ki nga xam ne donc moom moo di doomam ji gënoon a sës ci moom di wuyoo ci turu Karim mu donkoon ko donc ay ndombol tànk mais également jël ak njabootam yëpp dugal leen donc ci gouvernement bu ni mel coow li nag bari woon lool foofee donc ci diwaanu Mali loole nag dem na ba armée ba nga xam ne donc moo di armée bu Mali dugal ci donc loxoom ni ki démb euh, bi ñu xëyee la ñu joxoon ki nga xam ne donc moo di Ibrahima Boubacar Keïta ultimatum ci 14 heures ngir mu annoncé donc démission euh, ci bopp réewu Mali loole nag Ibrahima Boubacar Keïta dégg koon benn yoon euh, tax na donc ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi daal di wàcc nag ci mbedd mi dem nag jàpp ñu bari ci ñi nga xam ne donc fare woon nañ ci gouvernement bi ñu ràññee sax ak ki nga xam ne donc moom moo jiite woon assemblée nationale bu euh, diwaanu Mali te nekkoon ku am am doole ci kanamu ki nga xam ne donc moo di Ibrahima Boubacar Keïta que armée malienne bi nag euh, jot nañu euh, teg loxo Ibrahima Boubacar Keïta sàkku ci moom également mu def conférence de presse ngir rek teggi ndombol tànkam ci bépp instance bu nekk fële ca diwaanu Mali loole nag mu nekk loo xam ne moo xew donc fële ca diwaanu Mali nga xam ne donc armée bi jamono ji ñoom ñoo yor donc contrôle ci dëkk boobee nga xam ne donc moom Mali moo di eh, diwaanu Mali bu ñu sukkandikoo nag ci article bi la mu ngi fësal également li nga xam ne donc moom moo di CEDEAO bi nga xam ne moo ëmb yenn ay ci ay eh, dëkk ci eh, diwaanu Afrique ñoom nag daal dinañuy amal ab bataaxal ngir tëj seeni frontière ci bépp réew boo xam ne rek bokk na ci CEDEAO bi te dox digganteem ak Mali daal di rek am frontière ak diwaanu Mali ngir mu tëj ay frontière am loolu nag mu nekk ay mesures yu yoo xam ne donc CEDEAO moo di armée bu malien bi loole nag tax na euh, ñu dolli si ne euh, ki nga xam ne donc moom moo di Ibrahima Boubacar Keita dañ ko war a bàyyi mu delluwaat donc ci ak njabootam loolu nag mooy situation bi nga xam ne donc moo xew euh, fële ca Mali lii di Seneweb daal di ci dëkkal daal di ci dikk nag daal di koy titrer à une bu ñu desandee nag ak sunu bës mi des tey ci situation bi xew fële ca Mali ak li nga xam ne donc moom moo di suñu roplaan Air Sénégal moom nag ci benn communiqué boo xam ne donc fësal nañ ko donc ci seen page Twitter nee nañ nag dakkal nañu. bépp vol boo xam ne rek dafa waroon a dem donc fële ca Mali loole nag mu tukkee ci li nga xam ne donc moo xew foofee ca Mali euh, muy euh, armée bi nga xam ne donc ñoo teg loxo ci boppu réewu Mali jëlee fa ki nga xam ne donc moom moo di Ibrahima Boubacar Keïta daal di koy euh, forcer ngir mu def benn communiqué rek daal di fësal ne démissionné na ci bépp instance boo xam ne rek jiite woon na ko fële donc ci diwaanu Mali waaye itam également tas li nga xam ne donc moom moo di assemblée nationale bi loole nag jàmmaarloo yooyu nag tax na lii di Air Sénégal moom tamit sóob na loxoom donc ko ci euh, xeex bi daal dinay dakkal euh, bépp donc euh, vol boo xam ne rek waroon na jóge fii ci réew mi wutali donc fële donc ca diwaanu Mali muy situation bi nga xam ne lii di Air Sénégal daal dina ci dikkaat ñu day ñu des ba tey également seen actualité du jour ak sunu site internet ak sunu site internet bii di Buzz Sénégal Buzz Sénégal dafa ñëw donc titre à la une Sénégalais mort dans un incendie à Denver la police recherche trois suspects masqués mu nekk nag musiba mbaa ko ameel ginnaaw bi nga xam ne rek daal dinañuy attaqué benn kër boo xam ne ay sénégalais ñoo fa dëkkoon lu toll donc juróom ci ñoom ñu daal di leen boom ci anam boo xam ne donc anam bu doy waar li nga xam ne donc moom bu police euh, bu euh, Denver daal dinay ubbi ab ci mbir mu ni dellu ci sax ne euh, képp koo xam ne rek fexe na ba teg loxo ñooñee nga xam ne dañoo def ñaawteef gile daañu am récompense bu toll ci quatorze mille dollars loole nag nekk lu doy loo xam ne nag tegu na ci ndoddu sénégalais yoo xam ne ñu ngi toll ci juróom ñu daal leen leen faat nag ci anam bu doy waar foofee nag euh, foofee nag nga xam ne donc euh, fa la mbir muy euh, xewee muy fële donc ci Green Valley bu Ranch foofee la ñu daal di boomee lu tollook juróom ci ay sénégalais yoo xam ne ci anam bi ñu leen boomee ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef gi dañu daal di masqué wu ba daanaka seen xar kanam ngir nga gis ko dina nekk jafe-jafe loole nag nekk ñaawteef musiba mbaa kumba boo xam ne lii di Buzz Sénégal donc daal di ñëw tiitre donc ala la une ñu desandi ba tey seen actualité du jour ak sunu Buzz sunu Buzz dëkk ci euh, fële ci diwaanu sali foofee nag dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne euh, mu ngi euh, toll ci fukki at ak ñeent doon jàng toll ci en classe de quatrième moom nag dafa daal di xaru nag par pendeson mu am nekkee fële mu xewee nag fële donc ci diwaanu sali ginnaaw bi nga xam ne donc ci biir néegam foofe donc la xaro ak rideau yi nga xam ne donc moom la ñu daal di woon takk ci biir néeg bi ba tey nag jamono ji nekk na mbir mu doy waar bi tax kii di Umu Kalsom Ba Diallo daal di nag ñàkk bakkanam maanaam euh, foofee donc euh, ca diwaanu euh, Saly te lii di donc sunu buzz daal di ci dikkaar ci anam bu yaatu ñu des ba tey seen actualité du jour ak sunu site internet bi di buzz Sénégal buzz Sénégal dafa ñëw donc titre à la une la police torture à mort deux individus suite au vol de sept poulets à Bouchy mu nekk nag mbir mu doy bi nga xam ne donc benn takk der moom moo ko amal donc ci benn ci ñaar ci ñett ñoo xam ne donc la leen di toppee mooy dafa dañoo donc sàcc ay ginaaram loole nag tax na police boobee euh, daal di jàpp ñett ñooñee daal di leen wal ba ñu mel ni mburu ba ñaar ñi sax donc jot si ñàkk seen bakkan euh, kii nga xam ne donc moo di ñetteel ba ca des moom nag ñu daal di koy rawale fonk donc ca hôpital euh, mbir mi nag mu ngi xewee donc fële donc ca bët gànnaaru Nigéria ginnaaw bi nga xam ne donc lii di Buzz Sénégal dellusiwaat na donc daal di koy fësal donc ci xëtam bu njëkk mu nekk nag musiba ñaawteef goo xew foofee donc ca bët gànnaaru aaru euh, Nigéria te lii di euh, Buzz Sénégal di kaar si daal di koy titré à la une ñu des ba tey seen actualité du jour ak sunu site internet bi di Sénégal Sénégal nag dafa ñëw ci ki nga xam ne donc moom moo di euh, Diop Iseg mu titré donc la une des nervis de Diop bloque l'entrée au personnel mu nekk nag mbir mu doy boo xam ne ay liggéeykat yoo xam ne ñoo doon liggéey ci fi nga xam ne donc moo di institut supérieur d'entrepreneuriat bu d'entrepreneurship et de la gestion muy Iseg bi nga xam ne donc kii di Diop kii nga xam ne donc moom Modi Diop ISEC moom mooy PDG bi nga xam ne donc moom moo jiite euh, lii di euh, école boobele li nga xam ne donc ñoom ñooy liggéeykat ya fa nekk euh, dal doo di réclamer nag seen lut seen payoor mu toll nag ci trente millions de francs CFA bu ñu jàpp ne lii di Diop ISEC daf leen ko yorool tax nag ñu wutali woon donc ca école boobee ngir rek fa fas yéene jàkkaarloog way taskatu xibaar yi ñaxtu jëmale ci seen jafe-jafe yi nga xam ne moom lañuy jooytu si kër liggéeyukaay ci kër liggéeyukaay boobee ne eh, Diop ISEG nag daal di yebal ay nervi yoo xam ne eh, ñoom ñoo taxaw ca buntu ba lànk ñi nga xam ne donc ñoom ñoo di liggéeykat yooyee eh, du ñu am accès benn yoon donc ci barab boobee noonee donc la ci lii di Sénégal daal di dikkee titre donc à la une ñu jeex ñu jeexale nag suñu actualité du jour ak sunu site internet bi di Seneweb Seneweb donc dafa ñëw donc titre à la une le premier président la cour d'appel de Kaolack démissionne mu nekk nag lu doy waar boo xam ne ki cour d'appel bu Kaolack daal dinay démissionné euh, ci anam boo xam ne kenn xamul la tax mu démissionné loole nag ki nga xam ne donc moo di euh, Souleymane Teliko mi nga xam ne donc moom moo jiite euh, Union des magistrats du Sénégal daal dina koy donc naqarlu bu baax a baax mbokk yi ñu jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme Thiès info point com ci kàddu gi Ahmadou Bambali jox leen rendez-vous beneen yoon seen actualité du jour ci Thiès info point com jërë ngeen jëf.